ah sëñ Babacar la wax de yow nga naan sëñ Mbaye si <laughs> ci ànd bi ak télévision Futurs Médias soir d'info ñu tàmbaliwaat ko rek encore une fois tànnaat ñaari ponk euh, ñëw fii euh, waxtaanee ko di leen nuyu nakk bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay dinañ demit ca Tiwaawoon ndax it ñu ngi ci euh, période bourde te bourde bi tey di avant dernier jour bi du ñàkk dinañ ci ñëw si kanam fekk fa Pape Djibril Fall mu dellusiwaat ak ñun rek ci li nga xamante ne président Macky Sall ba mu fa teewee wax na ko fa du ñàkk ñu ñëwaat ci ak it déclaration bu Serigne merci Mansour di leen wax it ne yeneen ñaari ponk yi nga xam ne daañu ko waxtaanee tey bokk na ci benn rapport bi ñu nemmeeku ci élection locale yi te euh, fas nañ fës fasal nañu j'y euh, arrive euh, benn amendement boo xamante ni ministre de l'intérieur wane na ko ngir wax rek ne élection yi dinañ ko amal ci atum 2021 ci weeru mars du ñàkk dinañ ci dellu si ak professeur Ngouda Mboup nga xamante ne xelam màcc na ci wàllu constitution bi ñu xool rek texte yi nan la tëddee ndax loolu ñu def dëppoo na ak yoon wala déet ci kanam lay doon gannaaw 20h bi xibaaru wolof yi it fii ak it ca Tiwaawoon journal gàmmu gi dinañ ci ñëw euh, ak rédaction bi pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko euh, li nga xamante ne rek mooy publicité yi ñuy jagleel wàllu xeesal te ñu aye ko ci télé yeeg ci rajo yi CNRA daal di fësalaat ab euh, këyit ngir wax ne rek mi ngi leeral ne code de la presse moo ko njëkk a aaye waaye du ñàkk ñu gën a yaatal rek ak ki nga xamante ne bokk na ci kuréel googu di conseil national de Seydi te teew ak ñun ci plateau bi monsieur Diakhaté dalal jàmm. Euh, jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax euh, di nuyu euh, ñiy liggéeye fii yëpp TFM di nuyu aussi ñëpp ñi di seetaan TFM di rafetlu bu baax a baax invitation bi ngeen def. jërëjëf Daouda di ànd ak ñun mercredi bu jot Daouda mit ma bàyyi la nga nuyoo yooyu tam. waaw maa ngi lay gërëm encore une fois Aram ci invitation bi di am mbégte di partage encore une fois plateau bi ak yow ak professeur Djibi Diakhaté bi nga xamante mooy suñu invité tey. alors professeur balaa may ñëw ci moom dañuy njëkki euh, fële ci Tiwaawan fekki fa Pape Djibril Fall euh, Pape gannaaw ba ma la nuyoo lan la ñu mën a jàpp rek ci euh, xibaar foofee ci dëkk bu sell. Pape Djibril Fall euh, du ñàkk ñu ñëwaat si moom bu dee yemb na ñu fekkiwaat ko ni ma ko waxee léegi ca Tiwaawoon ngir rek euh, xool euh, naka la mbir yi tëddee foofu gannaaw ay fan rek a des ci ñu jublu ci gàmmu gi nga xamante ni ci samedi bii la nar a doon Pape bu fekkee yaa ngi may dégg. Ah, Aram maa ngi lay dégg bu baax Aram. jërëjëf ñu euh, dellu siwaat rek ni ma ko waxee sànq ci euh, visite bi nga xam ne président Macky Sall euh, def na ko fa wax rek encore une fois ci taxawaay bi nga xamante ne diine am na ko ak it li nga xam ne rek mooy jàppandal gi communauté Tidiane def jëmee ko ci moom ba nga xam ni nemmeeku na ko it ci wàllu élection ak yeneen ponk yoo xam ne wax na ko fa du ñàkk ñu bàyyi la nga gën a yaatu Aram maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ngi topp soir d'info euh, jamono bu nekk tey jii nag depuis Tivaouane euh, ñu fas yéene rek euh, daal di leen tënk rapidement li nga xamante ni moom moo fi xew comme ni ngeen koy dundee jamono bu nekk ci télévision Futur Média muy li nga xamante ni moom mooy burdu bi. depuis nga xamante ni weeru weeru gàmmu bi teru na ba tey jii ñoo ngi ci ba suba incha allah mooy burdu bu mujj bi incha allah euh, ajuma di bésu noppalu bi samedi nag di bés bi nga xamante ni ci la ñuy màggal euh, guddi gane àdduna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam muy moment boo xamante ni bu am ama am bu ama am solo la donc effectivement ni nga ko waxee président de la république ñëw na fi ànd ak son gouvernement ñëw comme ni nga xamante noonu la koy defee euh, traditionnellement ñëw daal di indi ziaram waaye indi tamit li nga xamante ni moom mooy euh, euh, surtout ci euh, suivre suivi engagement yi nga xamante ni jëloon nañ ko ngir accompagner li nga xamante ni moom mooy gàmmu gi waaye comme ni nga xamante ni noonu lañ koy defee tamit defaat ay li nga defaat ay promesse jëm ci projet boobu nga xamante ni moo ngi ko tuddee réhabilitation des cités religieuses mu nekk ay discours yu am solo yoo xamante ni yëkkati na ko waaye moom. ci biir discours am dafa mel ni préoccupation bi nga xam moom la indaale ndax euh, xëy na àdduna moom moo toll foofu jamono moom moo toll foofu ci wàllu euh, ni ñu koy tuddee rek euh, wàllu sécurité wàllu terrorisme ak yëpp daanaka abordé na ko ba wax ne daal war nañu gën a góorgóorluwaat ba li nga xamante ni moom mooy li ñuy dégg feneen mu bañ a Sénégal mooy ñi nga xamante ni rek dinañ ñëw dugg ci seen bopp xëy na am benn diine boo xamante ni gëmloo nañ leen ko ba ñu dugg ci wàllu radicalisation ba di def naka sudul noonu donc moom dem na sax ba tuddee ko colonialisme spirituel nee na bëgg ko benn façon colonisation baaxul forme colonisation yëpp benn baaxul waaye moom jàpp na ne boobu aram bu ñu war a moytandiku la Serigne Babacar Sy Mansour tamit di xalif général de Tidianes ñëwaat na moom tamit ci loolu wax ne euh, mag ñi ñu am ci Sénégal ak liggéey bi nga xamante ni liggéey nañ ko fi euh, soxlawul ñuy jéggaani dara te loolu lu ama am solo te wax ne rek dañ koy jaare ci ay interprétation ak yoo xamante ni xëy na fi ñu koy teg du dëgër waaye xëy na li nga xamante ni moom mooy éducation bi moom moom la ñu war a gën a bàyyi xel bu baax a baax surtout l' éducation des plus jeunes pour que ñu mën a pare ak ci forme de de de de d' assimilation yooyu ak fu mu mën di jógee ñu mën ci taxaw temm ba nga xamante ni li nga xamante ni ñooñu bëgg nañ ko ci aram duñ ko ci mën a am merci merci beaucoup Pape dinañ ko jëlaat ci kanam lay doon xam naa ci parti française bi bu ko defee it ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ne doon na ko jukki léegi euh, ñu ñëw ci monsieur Diakhaté Euh, sànq am na lu ñu doon waxtaane euh, mu di euh, publicité ci wàllu xeesal CNRA xësal ab këyit daan ne ah télé yeeg rajo yi bàyyi leen xel ci li nga xamante ne nii code de la presse wax na ko ñu bëgg a xam aaye la wala lan la. waaw jërëjëf je crois que war nañu leeral loolu xam nga CNRA dafa am périmètre bi dafa am fi nga xam ni fa la ay responsabilité bi am lu jëmale ci télévision ak rajo. mais li nga xam ni moom la responsabilité am mooy li ko sañ-sañ bi nga xam ni moom la ko yoon jox te sañ-sañ boobu boolee ñu tënk ñun ñëpp or bu fekkee ni da nga dellu ci code de la presse article 112 bu code de la presse dafa leer nañ am lu mu tere. Mm. lu jëm ci mbirum publicité ci rajo ak télévision yi jëm ci cigarette euh, jëm ci cinéma. waaw jëm ci ngànnaay jëm tamit ci euh, produit yi nga xam ne dafay xeesal. moom mu ñu wax produit cosmétique de dépigmentation. noonu la ko article bi waxee. donc li CNRA def mooy fàttali donc xëy na ñi xamoon nañ ko waaye ñu fàttali ñun suñu. bopp mais lu tax fàttali jamono ji. waaw parce que xam nga fàttali moom du du doy mukk euh, parce que bu fekkee ni da nga koy gis muy am malgré tout parce que ñu ngi koy gis quand même mm-hmm. euh, publicité yooyu di jàll ñu ngi koy gis ñuy fàttali di gën a ñaaxaat nit yi ñu gën a respecter loi yi nga xam ni ñun ñëpp moom moo ñu tënk donc. am na ci ñenn ñuy wax ne euh, CNRA dafa tere xeesal. loolu suñu responsabilité. Euh, CNRA dafa tere ku ko jaay loolu du responsabilité responsabilité mooy li loi bi wax jëm ci publicité xeesal ñu ni aaye nañ ko ci télévision ci rajo yi ñu jéem a fexe ba euh, doxalee ko noonu muy loi yoo xam ni lu CNRA moom moo ko tëgg. Mm. loi yoo xam ni dafa jógee ci ay député am fu mu jaar ba génn ñu jàpp ni réew mi yëpp la tënk ñun ñëpp ñu war cee tënku. ñuy fàttali ne rek. d'accord loi yooyu ñun ñëpp nañ ci tënku te éviter euh, publicité ci télévision ci rajo jëm ci ngànnaay jëm ci Sénébar euh, gëm ci jëm ci xeesal ci li nga xam ni moom moo ñu réunir. dinañ ci ñëwaat gën a yaatal code de la presse muy wax. daaw mm. euh, da mm. boobu ba léegi. yenn yi ci mesures yi ñu war a jël sax mm. ngir assainir ñun suñu secteur dañuy naan kenn jëlagul décret d'application code boobu ñu ne ci la ñu sukkandiku ngir def lii ba dégg-dégg lañ ci war waaw man li ma li ma gis li ma dégg moo di euh, article bu muy visé article 112 ci ancien code de la presse bi bokkul ak bu bees bi euh, code bu bees bi je pense que loolu defaat nañ ko ci mais dañ ci defaat yeneen disposition yi nga xamante moom mooy concerné ñun suñu profession mm-hmm. notamment Euh, carte de presse nationale bi nga xamante ne dañ ko war a édifier notamment critère de formation bu nga xamante journaliste war na ko am pour que ñu mun ko considérer comme journaliste notamment également commission de validation de l'expérience pour ñi nga xamante ne jaar ñu école de formation je pense mm. que loolu ci code bu bees bi la mais article bi muy cité muy article ci ancien code bi la bi nga xamante moom lay moom mooy appliqué wu ba tey parce que ah, code bu bees bi jusqu'à ñu ngi xaar décret d'application yi donc euh, entrégul en mais li ma ko bëggoon a bëggoon a laaj si si loolu mooy article 112 boobu noonu dafa énuméré ay comme ni nga ko waxee léegi dafa énuméré lu nga xamante ne dañ koy tere notalement publicité cigarette publicité produit non conforme euh, produit alimentaire non conforme yi nga xamante ne xamuñu par exemple origine bi fan la jóge et mhm. consort euh, notamment également muy ciga ciga cigarette ak euh, produit xeesalisé comme comme comme li ngeen wax lan moo tax yéen ngeen jukk ci xeesal kese xam nga ngeen def ko seen communiqué te yeneen yu ñu interdit defu leen ko ci seen communiqué. Euh, non xam nga euh, commu communiqué dafay nekk loo xam ni par rapport à la circonstance. Ah, alors loolu moo c'est pertinent parce que loolu moo tax ki laaj laaj la. justement moom laa ko doon rappeler léegi. ne ñu rappeler ci loolu. ce qui mm. n'exclut pas. Mm. que bu ñu gisee ni opportunément par exemple ci mm. affaire ngànnaay publicité mi ngi ciy am. Hmm. parce que ku ne xam na ni ci affaire cigarette am nañ ci ay avancé yu yu am solo yu ñu def. Hmm. ci affaire ngànnaay am nañ ci ay euh, ay yu avancé yu am solo yu ñu ci def yoo xam ni daanaka publicité daanaka gisatoo ko. Hmm. alors léegi li ñu gis li gën a fës jamono yi ñu génn. moom mooy li jëm ci mbirum xeesal. donc ci foofu la ñu agir. Euh, yaakaar ni nag di ci am yaakaar ah ne euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu concerné mooy ñi nga xam ni ñoo nekk ci rajo yi ak télévision yi. ne ak ñun parce que liggéey bi ñun ñoo ko bokk. ak ñun dinañu liggéey ci loola ba mu am ci aussi ay avancées maintenant dafa am yeneen aspect parce que même bu fekkee ne def nañ ci ay avancées ci euh, publicité euh, xeesal ci télévision ci rajo loolu tekkiwul ne forcément ni nit ñi dootuñu ko utiliser. donc am na beneen liggéey bu nga xam ne mooy liggéeyu éducation liggéeyu sensibilisation euh, bu nga xam ni yeneen cër yeneen yeneen kuréel dinañ ko mm. doxal. ñun mën nañ ci dugal suñu loxo en tant que citoyen mais ci li nga xam ne moom mooy suñu périmètre responsabilité institutionnelle ci ñu koy doxal mooy euh, loi bi am na loo xam ni euh, sañ-sañ la bu mu ñu jox mais am na sañ-sañ bu nga xam ni moom la jox ñeneen ñi alors ni leen ci seen sañ fii la yam mën ngeen a def lii mën ngeen def lii mais am na lu nga xam ne mënu leen koo def bu ñu demee nag bay gis ni loolu nga xam ni ne mënuñu koo def am na ñenn ñu koy def heureusement que du ñëpp ah, am na ñenn ñu koy def ñu fàttali daan ni nañu def nànk parce que lii yoon daf ñu cee tënk donc fàttali ko ñëpp ni yoon daf ñoo tënk ñun ñëpp ci produit bi nga xam ni dafay xeesal euh, waruñu ko publicité te euh, boo xoolee lu yàggul dermatologue yi def nañ fi benn congrès bu mag. Mhm, waa euh, Aïda voilà wane nañu ne problème bi mu posé ci santé publique maanaam ci wér gu yaramu doomu aadama yi problème bu mu posé ci xaalis dem nañ ci ba def ay xayma di wax ni milliards yi nga xam ni. moom la ñuy dépensé ci loolu muy indi ay jafe-jafe ci mbirum jàng di indi ay jafe-jafe ci mbirum mbay di indi ay jafe ci mbirum sàmm yu demee noonu parce que koppar la boo xam ne mënoon a dugg feneen alors loolu yëpp je crois que bu ñu nekkee ci benn dëkk boo xam ne ñun ñoo ko bokk euh, te am ay charte yoo xam ne moom mooy doxal dëkk bi parce que boo gisee ñu teg ay charte pour régler suñu ay relation entre ñun la donc bu ñu demee bay def lu nga xam ni mën na nekk am lu indi ab ngaañ ci nit ñi ñu taxaw ni daani attention est-ce que xam nga ni toll nañu tey jii foo xam ni ay liir dañ leen di xeesal waaw waaw xale boo xam ne day soo a judd tey ñu xeesal ko pour que jour u ngénte bi mu xees becc xam nga dañuy dem ba finalement mu indi jafe-jafe quoi man man li may jaaxal mooy euh, pourquoi il yi fallu que waa association internationale pour l'information euh, sur la dépigmentation artificielle génn wax fësal ay chiffres ñu dégg docteur Fatmata li wax ak ñeneen ci ay euh, membre association bi pour que yéen ngeen doogay génne communiqué bi wax si ndax loolu day wane ni CNRA deful liggéeyam ndax bu fekkoon mi ngi def liggéeyam xëy na du xaar sax ñu koy fàttali lool mu koy dégg ba doo koy waate donc lan moo waral yéen tamit ngeen toog di xaar ba loolu am. non non non euh, euh, structure la boo xam ne euh, dafay réunir régulièrement euh, pour xool fi nga xam ni fa la ñu toll di ko natt ak di xool naka la ñu mën a def ba situation yi nga xam ni mooy situation problème. naka la ñuy def ba xeex ak loolu. Hmm. pour xool tamit li nga xam ni moom mooy li gën a rafet nan la def ba dëgëral ko. donc ça se fait régulièrement travail la boo xam ni jamono ju ñëwee ñi ngi nekk ci loolu. alors li ma mën a wax moom mooy euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy structure boobu jógoon di wax ci mbirum der. Euh, visé wuñu spécifiquement la publicité. Mm-hmm. ci yeneen aspect la ñu la ñu la ñu la ñu intégré. Euh, parce que am na ñu nga xam ne ñoo koy jënd. di ko commercialiser am na ñu nga xam ne ci distribution bi ñu nekk. Euh, am nañu am nañu am nañu voilà mais ñun pàcc bi nga xam ne moom moo ñu intéressé te euh, yàlla xam na ni. c'est pas forcément en rapport avec sax partie bi ñu intéressé moom mooy constater loolu suñu constat personnel la constaté nañu te loolu bu ñu ko constaté wul fekk ñëlee wax ko tamit duñ ko wax donc li ñu constaté moom mooy que gis nañu dans les médias enfin dans certains médias certaines télévisions certaines radios ñi ngi def publicité boobu bon ñenn ñi bu njëkk dañ doon wax euh, leeral. Mhm. mujj gi euh, ñu xaw a bàyyi leeral sax di ko fësal di wax xeesal alors ñu jàpp ni lii loo xam ne dafay wàcc yoon la. loolu nag ñun mën nañ donc ça n'a rien à bu fekkee nag loolu dafa ñëw gën a dëgëral suñu position tant mieux. yan matuwa ay ngela ngeen am wala moyen yoo xam ne permettre na leen tey ngeen fexe ba lii ñu tënk ci communiqué bi télé yi ak rajo di ko jëfee. ci lan ngeen di euh, sukkandiku. alors il faut dire que du du rôle gendarmerie d'abord. Mhm. mais loolu accompagnement boo feet boo boo seetloo bu baax dañoo fàttali dañu ne dañuy rappeler dañuy fàttali parce que ñun acteur lañu ci loolu donc li ñu gënal li gënal ñëpp moom mooy média yi nga xam ne ñu ngi fonctionner ñëpp di doxal li ñu war a doxal tegal ko ci charte yi nga xam ne moom la ñu tëral donc loolu moom mooy c'est l'idéal maintenant s'il arrive que am ñoo xam ne dañu moom moo tax d'ailleurs ñuy def des activités de renforcement de capacité damay fàttali ni ci biir ay anciens journalistes ñoom ñoo ci nekk ay journalistes en exercice ñoo xam ni yàgg nañu ci milieu bi xam nañu milieu bi ñoo xam ni ñu ngi dans le domaine de l'édition de la publication ay ay doyens ñoo xam ni vraiment donc loolu seen raison d'être loolu la donc lu ñu war a défendre la maintenant il peut arriver que nit ki wàcc yoon am nañu possibilité wax ak kooku am nañu possibilité interpeller ko am nañu possibilité nag dem ba teg ay mesures coercitives mais loolu dafay nekk loo xam ni vraiment moom mooy li mujj ko mais li nga xam ni moom la ñuy jiital mooy prévention naka la ñu mën a def ba lii nga xam ni moom la euh, charte bi teg ñu xam ko d'abord. Mm-hmm. parce que des fois tamit nit mën na jalgati fekk xamul ça peut arriver. donc ñu fexe ba li nga xam ni moom mooy texte yi ñu xam ko daaw euh, da mi ngi doon wax sànq ne. ci euh, formation journaliste yeeg yu demee noonu am na ñoo xam ne yenn saa yi dañuy wàcc yoon parce que formation bi am nekku fa. donc xamuñu ko benn philosophe bu tudd Platon day wax nul n'est méchant volontairement que yenn saay bu ñu defee yenn affaires yi c'est parce xamuñu ko donc ñuy gën a xamal dañuy defay ay ateliers yu bëri et y compris dans les régions di déplacé wu dans les régions ak des techniciens di wax ak seen mbokku taskatu xabaar yi mbokku journalistes yi renforcer des capacités ça se fait au niveau des des des maisons des des maisons de des médias euh, am na certainement formation continue surtout pour les jeunes et cetera et mais comme li ñuy wax rek fàttali gën a dëgëral gën a et cetera ba fi nga xam ni moom la suñu penc mi jublu ñu mën a yegg foofu donc ci surtout ci je termine euh, ak problème mu xeesal loi donc ñun loi dafa exister daan ni mu ngi nii loi bi lii la wax lii la tëral léegi nag yéen seen sañ-sañ mooy ngeen fexe ba loi boobu loolu mu tëral nit ñi respecté ko noonu ci ni ñuy doxalee donc foofu la ñuy am. très bien. waaw damay dégg chaque fois que yéen waa CNRA bu ngeen di wax da ngeen di réfuter la rôle de gendarme da ngeen wax ni bëgg leen nekk gendarme ñu gis ni pratiquement trois mois yu nekk da ngeen def ay avis avis yu nga xamante ne lu ci bëri da ngeen di épingler un certain nombre de médias ak si ay manquement notamment affaire bi nga xamante ne def ngeen ko su fekkee ni ñi nga xamante ñoom ñooy médias yi respecté wuñ ko lan mooy doon seen taxawaay j'ai jamais vu fenn yoon fu nga xamante ne CNRA sanctionné benn média te gis nañu par exemple dérive yi nga xamante ne moom ngeen doon wax daaw daaw jéeg daawaati jéeg ba ren ji dérive yooyu ba léegi ñu ngi koy gis lan moo tax seen rôle gendarme boobu bugg leen Euh, ñu woo ñi nga xam ni ñoom la ñu duut baaraam wax ak ñoom yenn saa yi ñu def ay avertissement nit ki changé donc soxlawul nga yegg ba ci foo xam ni dafa sore bu fekkee ne avertissement bi tax na nit ki euh, changé li mu doon doxalee plusieurs fois plusieurs fois mais loolu dafay nekk suñu diggante ak ki nga xam ni moom moo def loolu soxlawul ñuy dem fépp di wax diw avertir nañ ko mm-hmm. Mm-hmm. mais moom dina xam ni jot na avertissement mm-hmm. woo nañ ko sax yenn saa yi ba mu ñëw toog ñu wax ko délibéré def suñu délibération wax ko ni ko lii ak lii moom moo am te boo continuer di def lii lii moom mooy daan mm-hmm. yàlla nag suturaal nañu ba très souvent wax dëgg yàlla ak seen euh, seen seen collègue yi ngeen liggéeyal très souvent du ñu yegg fa fu sori fa parce que bu ñu yeggsee ci avertissement affaire bi réglé mm-hmm. maintenant il peut arriver que ñu dem ba yàgg ñeneen ñëw ak d' autres fa euh, concours de circonstances tax loolu ñëwaat société bi tamit noonu la ñuy fonctionner ah am des fois des phénomènes de récidive mm-hmm. dafay am euh, moom mooy tax encore une fois préféré wu ñu privilégier ce ce ce rôle de gendarme qui constate dañuy couper dañuy fermer dañuy tëj. dañuy arrêté am ngeen prérogative yooyu dem sax ba nangu. Euh, licence wala euh, arrêté fréquence u kenn ndax xëy na doxeewul li nga xam ne moom ngeen wax. oui mais bien sûr bu ñu demee euh, loi bi dafa am lu ñu may. ak comme ngeen gën a fësal. waaw mais moom laa lay wax c'est-à-dire que xam nga li ñuy jiital moom mooy prévention mooy li nga xam ni waxtaan ak nit ñi renforcer seen capacité ba yaakaar ni yenn yi duñ fa yegg. Mm. bu ñu demee ba yegg fu nga xam ni gis nañu ay signaux yoo xam ni baaxul ñu wax ak nit ki jox ko avertissement yàlla li ma lay wax léegi nii la suturaal nañu ba Euh, bon c'est vrai que euh, comme ni ma ko waxee daf ci am ci biir composition bi ñoo xam ne yéen ci médias yi la ñu bokk yàgg ci di liggéey donc xamante ne ni ba souvent bu ñu waxee ñoo xam ni lii ñu wax ak li loi yi établi du suñu sañ-sañ du suñu ay coobare bopp dañuy rappeler rek ni loi yi lii la tëral loolu rek la ñuy rappeler loi bi mi ngi nii lii la tëral donc du man maa ko tëral du yow yaa ko tëral ñun ñëpp ñoo tënk ci loi boobu. d'accord souvent nit ñi dinañu comprendre ni lii du CNRA. loi la loi moom moo ni lii la CNRA ni nañ ko doxalee loolu c'est aussi simple que ça donc du CNRA moom mooy jóg ni sama loi mi ngi nii lii laa bëgg ngeen def ko boo leen ko deful lii laay def déedéet loi bi moo ni lii nañ ko def lii ku ko deful lii moom mooy daan yi loolu la ñuy topp na euh, ci kaw loolu yaa l'esprit et la lettre te loolu dafay tax ñu mën a toog ñun entre nous parce que on est entre des Sénégalais euh, c'est euh, ñun ñoo bokk fi nga xam ni moom mooy suñu jubluwaay euh, moom mooy des médias performants compétitifs parce que ci contexte compétition la ñu nekk compétitif efficace loolu ci loolu la ñuy liggéey du nekk di yàqal kenn du nekk di tëj kenn di nekk non mais fexe ba lépp jaar yoon ñun ñëpp ñu respecté loi yi teg ko ci raay yi nga xam ni mooy raay normal ñu am euh, euh, vraiment un espace des médias qui soit un espace performant loolu rek moom. ci loolu ñun ñëpp ci loolu Euh, li ñuy jaaxal rek mooy CNRA naka lay def kon bay jàll à côté ci yenn affaire bu ñu ko mënee tuddee noonu parce que euh, am na lenn loo xamante ne ni tey mu ngi lor askan bi en exemple bu may joxe ñi nekk euh, si télé wala yenn rajo yi di diggée ñoo ngi faj lépp di proposer produit bu nekk di def loo xamante ne nii nit ki mën na ko woo consommer ko am loraange boo xamante ne xëy na buy dem kër docteur sax day fekk kaam critique na lan moo tax foofu noonu CNRA taxawu si te pourtant mi ngi nekk comme une traînée de poudre si biir média yi. xam nga xam nga euh, CNRA régulation a posteriori du régulation a priori am na ci loo xam ni relevé wul ci suñu domaine de compétence donc ñun euh, ki nga xam ni dafa joxe potion boo xam ni baaxul mu indi loraange ci nit ki beneen domaine de compétence la ñun suñu domaine de compétence. mais ci média lay jaar. waaw ci donc intervention dans les médias wax loo xam ni baaxul ñu vérifier ko. mu ñu intervenir à posteriori daal ni lii mënul jàll mais bu fekkee ni nit ki dafa joxe loo xam ni euh, poson la lu posone la loolu beneen niveau d'intervention la c'est-à-dire que des fois aussi euh, procès bu ñuy defal mooy euh, je sais pas dañuy jël yu bëri boole ko loo xam ni àndul. waaw mais fi fi fi aram di waxee par exemple moom mooy publicité bi. ni nga gise par exemple nu ñuy pro nu ñuy publicité produit xeesal noonu la ñuy ñuy publicité ay tradipraticiens ne mën naa faj lii mën naa faj lee mën naa faj mm-hmm. yi nga xamante ne. fekkee ne garab bi baax na xamuñu dosage bi parce que jànguñu médecine foofu la waxee yéen. c' est que da ngeen di intervenir après bu ngeen gisee par exemple sérieux pourquoi yéen du ngeen intervenir. justement moom laa lay wax qu' est ce qui prouve que dosage kan mooy réglé ni dosage tu comprends ce que je veux dire. kii réglé ni dosage bi baax na li kooku di présenté télévision. kii réglé ni ndax dosage boobu baax na. Euh, kii autorisé. kooku ubbi cabinet di di di di fonctionner kii et cetera et cetera kooku du ñun. c'est comme xeesal c'est comme xeesal yéen mënu leen mesurer par exemple degré de toxicité toxicité bi nga xamante ne moo nekk mënuñu ko mesurer voilà pourtant génne ngeen pourtant génne ngeen une décision pour pour interdire xeesal. justement parce que ki nga xam ni dafay publicité dafay wax ni lii dafay xeesal. en ce mala là c' est net mm. ñun mën nañ ci intervenir mm. mais ñun munuñu intervenir ni produit bi Euh, je sais pas moi lii mooy composition bi lii mi et loolu c'est un autre aspect beneen domaine la. Mm. mais ki nga xam ne dafay publicité. délibérément à la rajo à la télé. wax ni produit bi boo ko defee dafay xeesal. boo ko defee sa doom buy soog a juddu daf koy xeesal boo ko defee nii et loolu dafa clair. bu boobaa ñun loolu li ñu yoon may comme sañ-sañ. mooy dellu fàttaliku ci ñiy def loolu. ni boo leen ko defee wàcc leen yoon maanaam ci gàttal am na ci dimension boo xam ni euh, par exemple bu ñu demee ba ne lii kii lii mu def ci dosage bi baaxul donc kenn waru koo teg télé parce que dosage bi baaxul bu ñu saisiré ci loolu mën nañ ni kooku mënul jàll télé mais du ñun mënuñu mesurer ni dosage boobu baax na am déet parce que loolu bokkul ci suñu périmètre de compétence. merci merci beaucoup dinañ ñëwaat ci moom ci kanam ñu dem seetaan pub daal di jàll ci xibaar yi.